da ngeen jëf baal leen ma ci kàddu gi gat sa gàt say Ousmane Sonko ji mujj na ci masa masa démb yéenekaay yu bari ñu xëya ndool xëy dellu si ak ñun ci ni njiital parti Pastef li daj démb ci diggante tribunalum Dakaaru këram nga ci cité kër góor gi l'observateur jël kàddu gi dikkaat ak ñun ci li xewoon démb ubbil yéenekaay bi démb lañ ko waatoon ci tribunalum Dakar moom Ousmane Sonko moom ak Mame Mbaye Niang mi ko porté woon plainte ngir ñu bëgg a càmbar dossier bi bu baax a baax wax l'observateur nañu ba ñu renvoyé procès bi Ousmane Sonko ànd ak mbooloo mi ko gunge woon ak ay garde corps am ñu jël cornisum Dakar bi takk der yi jiitaleen bi ñu ñëwee bay jub tunnelu Soumbédioune bi ci la cortège Ousmane Sonko bi bloqué munta dem munta dikk waa bip ak waa GIGN ne ko na wàcc otom ñu dugal ko ci seen oto yóbbu ko këram Ousmane Sonko bañ loolu alkaati yi dégagé garde corps yeeg mbooloo mi ko toppoon toj wiitaru otom génne ko ci otom jël ko yóbbu këram Alioune Kandji dip major de la gendarmerie à la retraite ne ñu ci l'observateur ngir wattu ak kaarangem ba mu yëgg këram moo waral takk der yi doxalee noonu jël seeni responsabilité génnee ko ci ci botom dugal ko ci seen bos yóbbu këram léegi ko nañu bëccëg bi avocat yi mi sàkko ab renvoi ca ba àttekat bi bañ léegi ko ne nañu batu ñibbi moo réglé cas bi am démb ci réew mi source ne nañu dafa meloon ci film western la ne woon watab GIGN bi fa mbëkkanteeg watab garde corps yi yi photographe bu Ousmane Sonko bi bi fitna ji jolle gis nañu ko mu tëdd ci suuf am ñu ne balu fital lañu ko dóor ci tànk bind ne coowal Prodac li ci diggante Mame Mbaye Niang ak ci toolu gazante ci la mujj kàddu Ousmane Sonko ci xët mu njëkk yéenekaay bi muy wax ne ñoo ngi jëm ci musiba ñoo ngi jege dangereusement ligne rouge bi libération nañu Ousmane Sonko démb ba mu jugee tribunal di ñibbi këram waa BIP ñoo ko mujjee embarqué fa force yóbbu ko këram cité kër góor gi ci ngoon gi mu bëggoon génn ne day def ab conférence de presse gaa ñu dóor koy lacrymogène Sonko moo ko wax démb nee na jamono ji dañu koo def ci ak résidence surveillée alkaati yi ñëw buntu këram toogaanu ko munta dem munta dikk ci li ñu tegul fenn li tegewul fenn Walf Quotidien gis na ñu ne ko moo taxit bari na ko ñaawlu ci réew mi La Tribune moom li mu gis moo di policiers yi ñoo acharné ci kaw Ousmane Sonko enquête dina kay di ñuy wax fi avocat Ousmane Sonko yi jaar ba tax ñu renvoyé leen procès bi dolli nañu ci ne bésub démb bi taroon na moom mi jóg gi fu dëgër di mambay ñang di ñu xamal ci yéenekaay bi ne la ma jàppoon ba tax ba coow lay soog a jolli ma ne président damay démissionné loolee moo fi nekk ba léegi li ma bëgg mooy wan askanu Sénégal gi yépp ne Ousmane Sonko du waxkatu dëgg jeunesse républicaine di waa ko gère ci kàddug seen njiit Moussa Sow mi ngi ñuy wax ci la tribune ne mënoon def ab mobilisation ñu it ànd ak mambay ñang gunge ko ba tribunal jële ko tribunal yóbbu ko ba këram waaye bu boobaa dañuy fàtt dëkk bi tooñ sénégalais yi am yitteeg farata yu ñu war a waaye nag bu mu tax mukk ñu jàpp ne dañuy toog di seetaan Moussa Sow ne bi takku nañu ba dëgër taxaw ci alerte maximale ku ci jàmmaarloo ñu fekk ba ñu ko bi mu jot a def ci bopp Union africaine bilan ba moom la ñu soleil xëy di defal keneen ku doon def ab bilan ba yéenekaay yu bari ñu xëyandool xëye ko tey ji moo di Ousmane Sylla directeur général bu Dakar Dem Dikk le témoigne nañu démb la doon xayma téeméeri fan yi mu defagum ci bopp bopp Dakar dem dikk ak la mu def ca kër ga li ñu mën jàpp ci bilan bi yéenekaay bi nee nañu moo di Dakar dem dikk gi ci ay jafe-jafe di clignoté rouge waa ji lijjanti na ko ba Dakar dem dikk di clignoté verte l'observateur nañu directeur général bu Dakar dem dikk wax na dem bit ne Dakar dem dikk war naa jot lu toll ci junniy bis yu bees ak ñeenti téeméer te ci yooyee ñetti téeméer yi war nañoo tàmbalee daw ci réew mi ci weeru juin gii di ñëw journal lise na ak wàññi guy dem ba ci 15 pour cent ci carburant bi wax na it ni recette yi Dakar dem dikk di dugal danañu ko améliorer ci lu toll ci 45 pour réew mi quotidien nee nañu moom la askan way yeewoo ci tund xaali Amar Fall di dund jamono ji li ko waral journal bi nee nañu moo di ñeen fukki village ak juróom yu fa nekk ñeenti weer ngi amuñum ndox ndax dañoo amee facture courant bu tolloon ci ñetti millions tax ñu coupé woon courant ba daan doxal forage ba gisuñu ndox dégguñu ko ndox moomee nag dana dellu siwaat ndax Mamadou mu njëkk record Sadio Mané ma nga ci liise ko mun nañu fa pare na moom Sadio Mané à 100 pour cent ngir dellu ci terrain bi.